ngeen jëf yi ñoo ngi leen di di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax leen wax ne ñoo ngi ci émission mag bi mooy jàmmaarloo su ma nee nag mbokk yi xel dem ci fans yi waaye bu ma nee jàmmaarloo dem ci ñaar ñi nga xamante ni ñooy sëgg di bëre damay wax bravo ñi nga xamante ni ñooy lion yi ndax démb defe naa ne képp koo xamante ni sénégalais nga wala sénégalais nga soxal sedd na ci ndam li nga xamante ni sénégalais kii lion yi jox nañu ko ndax nekk na loo xamante ni yàggoon nañu koo bëgg waaye démb la ko yàlla doo ko sottal ba tax na nag ñoo ngi leen di wax bravo bravo di jaajëfal képp koo xamante ni sonnoon nga ndax équipe bi di jaajëfal képp koo xamante ni nii daan nga daj ay coono ndax équipe bi defe naa ne soxol sedd na man nag bi coupe bi ñëwee démb sama xel ci papa Ablaye Diaw la njëkk a dem ndax xam naa ne moom nekk na nit koo xamante ni nii yàgg na sonn ci équipe bi yàgg na wax yoo xamante ni dafay doxal équipe bi kanam maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii dalal fi ñaari mbër yoo xamante ni ay ndaanaan ñaari mbër yoo xamante ni ay champion lañ ñu war a bëri le 27 ans ah, le 27 vingt 27 lañu war a bëri tey ma dal leen ci émission bi ñu jàmmaarloo ñoom ñaar xas-xasloo waxtaan maa ngi fi am ki nga xamante ni sama droite mooy armée armée 2 bu Rock sama gauche maa ngi fi am kenn mooy Seck Ndaanaan écurie Yoff écurie <laughs> Yoff ma bàyyi armée mu nuyoo ñëwee waxtaan bi armée nuyu naa la. waaw instant yii fay naa la di wax amoo bisimilah ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli conante bi di sant suñu ñaari waajur mhm. maa ngi sant sama papa bu wér di sant sama yaay bu baax a baax a baax euh, di sant euh, waa waa bo rawatina waa mhm. xam nga di sant waa Parcelles Assainies ba 26 maa ngi sant bu baax di sant sama sama ma ndaw ku ci mel ni Souley xam Dumbul Fallou Sock xam nga di bëgg baax di di aussi tamit di nuyu tamit sama adversaire ah. yaay di bëgg gaay yi. waaw sëg naa naan. sëg lu doon nga xam ci moom. <laughs> doo la déwee sëg naa rek laa xam ci moom. Euh, di féliciter tous les sénégalais quoi ci victoire bi nu amoo démb. Hmm. xam nga di wax xam nga dañ ko mérito quoi. di wax àdduna na tamit noonu la doo gis ci àdduna lu jot rek day yomb quoi. Hmm. xëy na xaar bi yàgg na mais tamit dem la ko suñu borom tudd. kon maa ngi leen di maa ngi ci félicité Sénégal bi fu mu mën a nekk ci diaspora bi rek ñu ngi lay félicité di ñaan yàlla suñu borom ndam lu jig na ci barke alxuraan. Seck waa fay naa la Ouzin di wax onze billah bisimilah no la yàlla jërëjëfe borom tuuba jërëjëfe sëriñ Saliou jërëjëf sëriñ Saliou waa di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi nekk fii di la nuyu di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu ñu ma fi àndal ku ci mel ni du Diagne xam nga ak zoo waa di nuyu yoof gi ma jóge ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñëpp képp kuy yoof waa rek ak képp kuy bëggee sekk ndaanaan maa ngi lay sant bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay waa di wax kontaante gi moom ñun ñëpp ko bokk ndax Sénégal benn boobu la kenn mënu ko xar ñaar di wax ni kontaan nan xam nga liñ doon xaar ay ati ati at yàlla indil nañu ko ci jàmm ak salaam di ñaan mu continuer xam nga te bañ fee yam xam nga di sant daal di bëggee ñëpp tamit. gis ngeen di sant di bëggee ñëpp euh, ñoo ngi jaajëfal ki nga xamante ni mooy Fallou Ndiaye ndax xam naa nii boole ay xale yoo xamante ni làmb boo xamante ni amateurs yi dañ ko bëgg ñoom seen wàllu bopp dañ ko bëgg dégg naa sax euh, kenn ci ñoom nee na lim ma yabee ba di ma laaj bu bés baa na taxaw dëggal boppam euh, di ko jaajëfal moom Fallou Ndiaye euh, yaa ngi ci ñaata combat 5 wala 6. waaw maa ngi ci 5 maa ngi ci 5 benn défaite. waaw ak combat bi waaw mooy 5 victoires. muy six victoire combat bi ñëwul nga bëgg jàpp six victoire yow tamit armée nga xam ne damay daan ci kàttanu suñu borom yaa ngi ñaata combat trois wala quatre trois combat trois victoire deux victoire benn défaite lan moo tax nga jël kii kii toll ci cinq combat xaw ma six man damaa saf làmb man doomu géwél laa man booy bu si bëriwul ak man sa coow du bëri te man maay seen rajo xuraaj bi borom yu saf borom doy barke Serigne Bamba booy bu ñu bëréewul ak man duñ am ci yow dañuy tëdd di nelaw sax yeewu tiit ci nelaw dugg dugg si groupe whatsapp yeeg fépp di ma laaj mais man laaj ma yomb na. mais non yow mënoo am 3 combats ki am 6 xaw ma 5 combats ñoo di la dëkk nag yow tamit armé ah, bàyyi yi ngay kii kon sekk yi ngay def. ah xam naa de moom moo dox wax ba combat bi taxaw si làmmiñam mu rëy mais kii aw ma lu may wax ak moom. non di nga wax ak moom parce que damay nuyuwaat waa Yoff rek. Mm-hmm. xam nga di leen wax komba bi seen combat la. ñu ñëw jàppale ma xam nga. ñaanal ma mais tey da nga sëbee yow jàkkaarloog booy bi di ko xam nga di ko jéem a wàññi di bañ a man man comme man kii bi ma xamoon sekk bi ma xamoon ak sekk bi du benn da bañ booy bi yëpp la wala. du loolu sax. da wax benn wax léegi rek. mooy daa am ko si nii. sa morom ma loo yabee sa morom mais man maa wax wax boobu noonu moom lu ma yabee bay wër di ma laaj man loolu laa bëgg a xam. lan nga gis ci kii ba topp groupe whatsapp yi ak promoteur yi ba seen combat taxaw. non kii lay wax rek man groupe moom sax teguma ko bët ba taxaw naa dama. damay wax sa diggante ak yàlla. damay dégg groupe whatsapp di ma laaj. sa diggante ak yàlla. yaa may dégg man waxuma ak non di nga wax ak moom moom ndax yéen ñaa yéen fi toog wax ak moom moom daa nga ko def am <laughs> yaa ko laaj wala laajoo ko laajuma ko dëkkoo ko dan maa woo mu may di sans frontière mhm. moo doon dox sama combat mhm. yaa ma dégg su ma juumul mu dox sama combat caatu foora caatu foora ni bëriwul ak man affaire yooyu quoi tu vois mhm. après ak yeneen yeneen adversaire ñuy dox sama combat ak moom wallaahi wala bu dee li may wax ni du amul yàlla ma ko ma ko daan moo woo ma téléphone ma Seck Ndaanaan ngi fii. Mhm. yaa may dégg mu ma ne ma Seck Ndaanaan mu ngi fii boobu sax yàlla dogal na albalkayr mi ak réparé nañu sama combat ak moom ma ak réparé sax moo taxawoon. yaa ngi réparé ma ak ba presque ba mu mënee ban wax tey ban waxaale ba pare. à mhm. la fin mu ama téléphone ma réparé promoteur bi nee na amul supporter. Mhm. yaa may dégg. ma ne ko léegi amul problème bi ñuy dem ki bi ñu dellusiwaatee après la ma ne leen promoteur bi nee na réparé arrangé wu ko. ma ne ko léegi baax na mu xolaat ma yeneen adversaire yoo xam xamante ni arrangé wu ma man tamit aussi yaa ngi dégg mu imposé ma jëm ji ma ne ko léegi amul problème yaa may dégg. Mm-hmm. mu ne ma léegi kon na nga ñëw sama place ngeen fixé ma ngeen fixé ma foofu. à la ne comme ko xamante ne xëy na jarul affaire jarul déplacement bi yaa ngi dégg à la fin ci la wax ne ma léegi waxaale ak moom mais jubóowuñu. Mm-hmm. yaa may dégg yaa ngi dégg ma ne ko ah ba mun waa léegi nag. après ma ngi ko sax dëgg ma de li ma wax dëgg ma la li may wax nii laa la wax moo nekk. yow li ngay wax laa. waaw dama déglu man li fi action la ba mu wan ba ma wan ma wan ne man taxaw ma di ma laaj di ma laaj soxlaa ma parce que yow ëpp na wu may combat ëpp na wu dama tax di la laaj xanaa ku ma ñàkk fayda ah mais maa la ma ëpp coow làmb. yow safoo làmb. foo ma ëpp ma ëpp coow barki alxuraan yow safoo làmb. man maay xale bu ndaw ba ma jógee ci làmb ak léegi def ma def sama preuve ba képp ku suufur làmb xam ma. yow booy bu ma la jàppee booy. waaw merci maa ngi génne xarit maa lay dóor lay daan. Ah, li ma la wax léegi laa la barki alxuraanul karim du ma la déglu mètre. ok baax na barki Mohamed. kii nag da laa ñëwee. ardu dina bari allah rabbi. yow maa dara nga combat bu mujj damay dama koy mu wàcc amul lu may nekk fii di négocier ak moom. sëñ bi sëñ bi barki alxuraanu kariim mënoo duma kenn. billaahi wallaahi watalaahi boo déglee sa bopp yow nga tax yow. man du la song. barki alxuraan ko du la song. boo déggee sa bopp yow da ngay def barki alxuraan. li bu yorul kii. kii day kii day xërëb la eh, yor eh, eh. gis nga kii bu yorul kii xeexu kenn kii day ñëw saa mooy combat la kenn kii day ñëw saale ay kuwam xërëb la daw yooru kii gis nga bu yooruwul laa la wax kii taxaw dëggal boppam ñu xeex sek <laughs> mënoo xeex kii bu xeexee man barke alxuraanu karim insha mais li ma bëgg xam mooy sek mënoo xeex ah baax na sa combat yi mënoo xeex ok barke alxuraan xeex ji mënoo xeex boo déggee Omar taxaw ah, ah, mu ma ah, xamoo ma bu suul ba xaw ma la barke alxuraan ko rus naa bérek góor laa la wax te yóbbu ma ko wala man mu naaj wul barke alxuraan man ak yow bu inshallah rabbi da ngeen kii moom kii bu taxawee dëggal boppam dina mel ni ta da ngay sóob <laughs> barke alxuraan da ngay sóob ok plus xam nga jëm si kan moom man barki Serigne Saliou Mbacke barki Serigne Saliou eh kii bu ma songul incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla kii bu ma songul ma ko song kii lu may dox di ah, kii dem coggal kii lu may dox di kii di cog kii di xaram pël pël. dinaa songanteeg moom. Seck da ngay soob Seck da <laughs> kii Seck yàlla xam ne doo xeex li ma la wax rek ñu wax mbir de yàlla seere ne da may song si mënoo xeex. duma dama lay song. dama lay song sa jàppante ngóor jigéen ñi jàppante ni dóorati waxuma loolu. na nga tax ñu dugal si bopp. di waaye. barki alxuraan non sa jàppante yi amal waxuma loolu waxuma la li ngay wax nii toogal nga nga am respect xam nga ay nit ñuy seetaan. xam nga non da may déglu fii moo la ñun ay nit ñuy seetaan ay góor yàlla ñoo ñuy seetaan ay kilifa ñuy seetaan yaa ngi dégg bul toog fii nii naa ay góor jigéen non non dafay neexal ay góor jigéen yu muy wax nii yooyu du amul sens yooyu du ay kii ay deuxième la mooy débat bi yaa boobu mooy débat bi non non nga respect yow booy yow waay toox ma lu ci kan moo la dépassé man ah, maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant bu baax di ko gërëm Fallou Ndiaye di ko wax barki Seydina Mohamed incha allahu rabbi combat bi nii mooy dàq ci combat yam tëgg ci kàttanu yàlla lu ci waay di séntu dina ko ci am. man dinaa am mais nag moom xamul dara mënul fecc mënul bëre man dina ambiance dinaa fecc ba stade bi jug. amul dégg moom dinaa lu neex dinaa daan lu neex ci kàttanu yàlla. dégg nga bëgg kii kii daa xam dara. kii njub mi bu ko rawee day kii incha allahu rabbi kii bu ko njub rawee paas. du fecc mbër laa. Eh, bu ko du fecc man maay borom ràmbal ak baara mbay incha allah rabbi maay ràmbal maay baara mbay maay daan ci kàddu yàlla la ngay def du ko turu incha allah rabbi dafa la fa la xewe ci affaire ay soirée doomi géwél la ne la ni ku ko def ko ay yooyu noonu yooyu ne taar la ay ay tànk <laughs> la waaye sec la waaw ak baal mais fii lam la culture du lam lam jàpp ci waaw tànk ci kii waaw toog ci tànk yi barki alxuraanu kayim toog ci tànk yi doomi dof ak dof bu doful say eh, eh. man doomi géwél laa bu ma ñibbuwul ngéwél rek damaa war te insha allah rabbi bu jour ba géwél yi dinañ bëgg ci ah, kàttanu yàlla mais nag mais nag dinaa xamal benn affaire gis nga journée bi ngeen bëre bëri na ci xale yoo xamante ni nii làmb da leen a bàyyi xel xale yi dañuy mobiliser dañuy bàq lu neex te dañuy yëngal stade bi xamul. mais boo boo yoo xamante ni. bu ñu stade bi. ku ci nalaw tuuti ñu fàtte la. Ouzin man làmb damaa soxla. man làmb daa bëgg ni ku mel ni man. man làmb daa bëgg ku ku ku kuy def ni man ci làmb. ndax da incha damay ñëw. damay bëre. la ngay def ay sa damay bëre. làmb solo damay daan. te damay neexal làmb. doo daan. lamb moo ma soxla am ci combat ba ak mu defante ay ay crochet ay dóorante épaule dóorante épaule soxlante kii cinq combat la def man trois combat laa def moom bëgg a bëree man damay sant yàlla sunu borom di dagaju di am lu muy feemu di am lu muy wax damay santaat yàlla yaa laa maay sant yàlla année bu ma duggee laa bëri trois sim ku laa bëri trois combat maay sant barki alxuraanu karim ku mobilisé wul laa la wax du bëri trois combat waaw loolu moom am na da ngay mobiliser waaw maa ngi dégg kon li mu barki alxuraanu sama ba falu yaay nag maa koy sant bu wér a wér di ko sama kilifa la sama la maa ngi koy sant lépp moom la maa ngi koy sant yàlla maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal jàmm. mais entraînement yi. Fallou Ndiaye la. day am waajoo ma ko sax Dakar. waajoo ko Dakar. barki Alxuraan. lu tax loolu. combat bii nii combat bi yàlla xam na wax la ko teg Ousseyn defuma ko combat. doo ko. defuma ko combat. nga laaj ko ba jël ko nga ne defuloo. ko combat Ousseyn ban wax ba tey combat bi taxaw nga ne defuloo ko combat. ko combat. lu tax amaana fu ma koy wax nii waxam mbër la après day jàpp ne waxi mbër la mais yàlla seere na def ma ko combat. dañ la déy ne la boo ñëwee day da nga koy jàpp taxañ ko teg ne. sama gëm-gëm ak lu nekk ci man am naa beneen combat bu may préparé mais du moom mii. billaay yàlla xam na ko. barke Sëriñ Saali man de wax dégg na yàlla moom moom moo ma si moom laay. pour bu ma woo. mais nag xam nga maa ngi dégg sànq nga doon wax naan moom moo dëkk. moo dëkk ba combat bi waaw est-ce que amul fu mu teg combat bi. ba tax mu ne da lay jël. zin combat bi taxaw na. yaa dégg. Mhm. man kii laa amal combat. moom laay préparé moom laay waajal. bu ma yeewoo ci moom laay dox bu may bu ma tëdd ci moom laay. te moom ngay te moom laay bëreel incha allah ci kàttanu yàlla. te moom laay daal naka nga wàccaali naka ngay waaj. ñu ngi waaj kon niñ daa waajee nu ko raw ñu ngi koy waajee. moom fu mu nekk ba yaakaar ne xam nga ko. mu ngi nax boppam. Ousseynou waxoo bi rafet lijjantiw moo ko nag de. moo ngi mu ngi nekk ni ma lijjanti. Eh, naa maa xam naa turu papaam xam naa turu yaayam loolu daanu ma. damaa beneen ba pat réew fan laa ne. jub xaw ma sa turu papa xaw ma sa turu yaayam. man dina jaxase ak àdduna ay naa. Kébé yaa mu taxaw naa maa. Kébé taxaw fokaaram li ma ko fulee yaa ma. booy bi xam naa turu ndeyam xam naa turu baayam diw la tudd xam nga yaa ngi dégg loolu daanu ma. man maa xam sa waaw waaw ma la. dugg ma la xaw ma sax loolu daanu ma. man li jël tur damaa bëree tur yi bëree papa yi Réfane 15 combats suñu dikk village combat yoo xam ne comme fii leen ko bi comme arène man avant may ñëw fii leen waa Dakar xam nañ ma yaa may dégg yoo xamante ni adversaire boo boo bëree da nga xamante da nga xam sunu ndey xam sunu baay loolu li jëntuma loolu amul problème loolu saa bu demee ba ne saa mun na maa daan. moo ngi nax boppam <laughs> yaa ngi nax sa bopp gis nga waay. Mm. entraînement ba moom kuw. Mm. mbéy nga am de barki alxuraanul karim laa ci gën te ma ragal du ma tapet. billaahi wallaahi wa bu ñu amoon ab wàccee nga xam ne góor yàlla ngay ngay bëreet barki alxuraan. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari mbéy ñu waxtaan xas-xas la <laughs> nappante bi am ci plateau bi yi dama koy bëgg. balaa ma doon ngeen jug dóorante yooyu. ma jaaxal leen <laughs> moo toog fii xam nga. yow dinaa yow bëri ci moom. di yuuxu di wax bëri wax bari wax bari wax bëri wax baraw la. <laughs> man du ma wax ak yow. man doomu géwél laa xam nga bu ma waxul tooñ man. ba ba déglu ma xam nga ma waxul tooñ. wax baraw wax bu ma waxul Seck. damay tooñ man. Seck mais yow nag. Seck dama ko xam yow lam ju xam li nga def. fekk arbitre bi wàcceel loxoom. fekk ma ma ba ne loo expliqué. waaw wala ko arbitre bi wàcc. billaay wallaay yow. allah bu arbitre sifflé ma wax nga ma yebee bay ne ba loxo nga toll li ma la wax naa lay wax rek na nga dégg sa bopp rek. sal jàppante ay cross loxo di doonante épaule. si dama laa xam bu baax. man dinaa jàppante ay épaule yow <laughs> kii adversaire mu ma bëreel bëreewul ak ñoom. ñi ma bëreel ñoo gën a tàng ñi mu bëreel. foofu nga bëreel bi kii barki alxuraan boo ñu bëreel dañ ma leen proposé ñu ne sekk ma man. billaahi wallaahi wa taalaahi bëri naa mbër moom ñi ñu ni ko yaag mu sekk ma man. loolu lépp garaawul man ak moom ñoo war a bëri ñun ñoo taxaw suñu combat moo taxaw booy bu arbitre sifflé ngir yàlla taxawal nga dëggal sa bopp booy ma ñëw agressé la duma la daan la ci carton yàlla incha allah la wax su ma lay areeral c'est que mu nar ma lay areer wala ma lay li ma ñaan ci làmb wala ma ko am. ok kon dina neex. kon ngeen kon gis ngeen dina nekk combat boo xamante ni combat njàndeem lay nekk combat boo xamante ni combat wu sax wàllu mobilisation foo ci toll. waaw ñun moom ko léegi nee naa la. Hmm. ngeen bokk ci journée boo xamante ni boo yëpp ay mobiliser wàllu fan ngeen ci toll. Fodé maa lay wuti combat bu baax nga jàpp bu baax Fodé. sama xarit sama yaay. lii teel a la woote fii say mbokk. wàllu mobilisation. ñun ku ñu xam-xam ñoom mobilisation ñun dañoo ñëw ci làmb macha allah yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu tamit ay nit yoo xam ne fu ñu jógee dañuy jug xam nga di woo ci wàll mobilisation di ci woo Kéba bu baax a baax di ci woo sama mag Badou Ndiaye xam nga di leen wax ñu waajal jënd bi yëpp di wax maire Yoff Seydina Issa waaw yéen bi liis na waaye yàlla oyof si yow yàlla na la yàlla defal jàmm kàttanal la xam nga di la ci woo ci combat bi bu baax nga jëndal ma ay billets yu bari waa incha allah yow bëgguma nit des fa di si woo Abdou Naar Meng xam nga Abdou maa ngi koy woo ci sama combat bi bu baax Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi koy woo sama combat bi bu baax xam nga li ma leen woowee nag du leen loo xam ne mooy yéen yéen ay doomu dëkk bi ngeen xam nga ñun ñu soxla mobilisation bu doy ci combat bii nii ndax suñuy nawlee fay ñëw taman rus naa jour boobu noonu mbër ñëw foofu noonu ëppale ma fa mbooloo xam nga maa leen ci woo bu baax a baax a baax di bëgge maam jaara Diouf doomu yaay njàmbe taalibe Serigne Saali bi maam jaar maa ngi lay bëgge bu baax a baax a baax a baax xam nga di wax booy bi day ndagaju rek di am lu muy teg di kii. bés waaw loo koy tëggal kii mënul bés mu ngi doog am bés. te incha allah rabbi bu arbitre sifflé lay xam ni mu ngi doog am bés kii musul a bëreeg bu mel ni man. comme que doomu géwél nga bu bés ba loo koy loo koy loo koy tëggal mu fekk. kii nii bu kii kii samay tàggu mbaar xajul ci moom. kii bu ma tàggu mbaaree balaa maa doxal mu daanu bu ma nee tabra taxit tabra taxit rombaxit cekkit balaa mu daanu. li gaa eh, yi naan cekkit cekkit moom mu daanu incha rabbi. te dégg xorom du bàyyi saf. bu xorom bàyyi saf réew mi du neex. barki Serigne Bamba. naka ngay waaje ci wàllu mobilisation. waaw affaire mobilisation xam nga ñu ngi ci waaj ànd ak suñu mbokku xam nga di ci waa Bawol gépp xam nga waa Bawol gépp di woo tamit suñu maire bi foofu monsieur le maire ji bi Thiaw xam nga di ko wax na di jàpp ci affaire bu baax a baax baax man soxlaa ma lu ma doomu aadama jox pour affaire xaaral ma ci préparer sama combat non non. bëggoo loolu lu ma nit di jàppale ma ko jàppale ci biir man soxlaa ma lu may préparer sama combat am naa ko. man ci bee lu ma nit jàppale bu fekkee te affaire pour préparer sama combat na ko téye man ay bee laa soxla parce que chaque chaque combat tamit dañuy dem di bàyyi fi ñoo xamante ni xam nga li ñu yóbbuwut mun naa li ñu bàyyi sax sama waay mu ëpp sax li yóbbu. chaque combat quoi tamit ñu am jafe-jafe boobu kon maa leen ci woo bu baax di ko teg tamit ci loxo xalifa xalifa Thiaw xam nga mission boobu yow yaa ko war a dox waaw xam nga di woo waa Parcelles Assainies gépp bu baax a am na Moustapha. waaw fi nga entraîné nag doo leen woo fi nga nekk. waaw maa ngi ñëw. waaw ah. ñooñu après léegi ñu gis ma incha allah rabbi léegi ñu gis ma incha léegi ma ñëw xam nga di woo Amdi Moustapha xam nga ak Aliou Dramé ak Grand Mor xam di wax ne xam nga man moo xam nga maa ngi doon ci combat bi quoi jàpp ci combat bi xam nga euh, di di sant waa Parcelles Assainies gi rawatina suñu costaud Pape Mbaye parce que aussi tamit xam nga su ma su ma ma dem préparé suma combat rek xam nga maa ngi ciy sant yaa maa ngi sant bu baax a baax a baax. du dara lu dul ma bëgg bëgg koo si jël yaa ngi dégg bëgg koo si rek moo tax sama waay kon maa ngi koy sant bu baax baax ci libéré bu mu ci libéré noonu quoi di sant waa Parcelles Assainies gi yëpp moom ba 26 di ñaana tamit xam nga ñëpp jaamu. Euh, di woo Cheikh Cheikh maa ngi koy woo bu baax mu ngi ciy jàpp sax mais na gën a jàpp bu baax. baax Cheikh Boutique moom Cheikh moom xam nga. waaw moom non mu ngi États-Unis quoi. Ah, Italie maa ngi koy ñaan di ko wax nam na la pen ñu ngi lay ñaanal jëm chaque jour xam nga gaaw jàpp ci kaw nga gën a jàppaat ci ko baax parce mu ngi jàpp Aliou Pen sama papa. bul xaar mu lay woo ñëw nga di jàpp ci affaire yi yaa may dégg sant te gërëm xam nga Aliou Pène maa ngi ku lay woo nga di jàpp ci combat bi wuli deux gars yi maa di woo di sant tamit sama boppa euh, Bekaay Diouf amu fi am parce que tey yaakaar naa émission ya nga ko bëgg yeg na yeg nga ko yeg a bëgg mm. mais xëy na comme ma la ko waxee rek lépp loo xamante ni luy doxal làmb ñu dañ ci lépp luy doxal làmb rek dañ koy bëgg mm-hmm. kon waa Wassare mun naa suñu suñu bég suñu bégte la quoi mm. kon du yoon tey xëy na yéen ñu soxla tey mu xew am tardement mais dafa fekk ne tamit aussi ñu nekk yéen yéen xat-xat yoo xamante ni parfois mooy loolu ñu ngi ciy jéeglu bu wér a wér buñ sañoon tey saa yu ngeen soxlaa tey da ngeen di gis quoi wallaahi di wax ne wasaare moom suñu kii la di woo tamit aussi xam nga xaw naa yor ak li di sa waay booy wootee goo danay mos jomaa yow danay waxtaan wootee goo ba tey damay bañ kii waaw wootee boobu mafia lii moom fi doog fi lii moom. waaw moom combat bi ñëwagul de. dama leen di ñu jàpp bee yi. waaw eh, si am woote ñii. nga woote. gaaw bi ñibbi bind yëpp li. waaw na dem ñibbi. moom lii la si am pour woo ay dem ñibbi. bi incha allah rabbi. merci. waaw gars yi maa ngi sant bu baax baax xam nga. gis naa fi waaw. li ma wax ba mu tax wootal si Saliou ak euh, Pape Moussa gis naa tamit jàppale bi ñu jàpp son ngi son ci affaire bu baax a baax maa ngi sant bu baax a baax a baax waa Ndiaye yëpp xam nga waa Ndiaye loo kenn Massar xam nga waaw xam baa waa Bargny yëpp tu vois. waaw di bu baax ñu jàpp ci combat bi bu baax baax ak son papa Cheikh Neymar am ma maa ngi koy sant Père Aliou xam nga Père Thiel yi Père Sall pour am ma dem damaa ak lu duun maa ngi comme sama papa xamante na bu baax sax xëy na bëgg ko ma tudd turam mais. daal di jool gaa yi. waaw. Seck Ndaanaan tey aju. naa. ba tey. aju naa ba nga pare ma waaj. waaw merci ba tey waaw ajul. aju naa voilà defal loolu. wóor waaw xam di woo tamit euh, sama patron Cheikh Omar borom Foire. ak Bakar Bakar ak ak Babacar ah ma Foire grand pape xam Pape Diop Pape Lacrosse gars yëpp nag maa ngi leen di woo jàpp ci affaire yi sama waay xam nga euh, di tamit aussi waaw euh, defe naa mooy xaw a jeex de. waaw ak Aliou Diouf moo dese ko gars yëpp. waaw jàpp ci affaire yi ah, xam ne macha allah quoi waaw. noppi nga. pare nga. Aliou Seck waaw léegi wàccal. doxalal. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo kenn fàttewul dara damay tëj de. ah ñu ko rek. Euh, waaw. Zirk ko def ci dërëm paanu ndox. ak juróom dërëm suukar juróom dërëm suukar meew fukki dërëm. waa di wax combat bi. waa ma fi yaa pneu ya. combat bi seen combat la maa ngi sant bu baax gis naa daa benn groupe boo xamante ni sax dafa benn benn kon boo xamante ni ndeysaan pour jàppale armée doo mën a tax a jóg maa ngi sant nag bu baax ah, baax di teg ci loxo bi grand Aliou ak Daadu Njoor xam nga parce su ma tuddee gars yi ci liste bi ak taaru boy yi ne xam nga ñoom moo dugg yéen ñoom jagaay yi yëpp bu baax baax gars yi ci groupe bi yëpp daal maa ngi sant bu baax gis naa caxawaay te bu soobee suñu borom damay koy fay insha allah waa ma fi yaa pone combat bi seen combat la kii dafa tiit di ndagaju ñëw indaale listam santal te gërëm te ju ñibbi ma fi yaa pone combat bi seen combat la ku si mel nii toj toj maa ngi lay woo si combat bi bu baax a baax ak Ousmane xam nga di leen si jiital di wax Fallou Pono boroom dindi Pono maa lay woo si combat bi Abdou Bey maa leen woo si combat bi bu baax a baax gaa yëpp ku lim jum ñoom yoogin xam nga booy yëpp ñoom suñ Fallou booy yëpp yëpp yëpp yëpp ku lim day jum moom Moustapha Bari ñoom ñëpp maa ngi leen woo si combat bi leen seen combat la open press bi le 18 la si marché Yoff di wax ngeen ñëw ñu waxtaane ko teg suñu paanu ndox comme noonu rek def meew fukki dërëm si zirik ko suuko juróom open press bi maa ngi si woo ñëpp képp koo xam ni waaw open press bi maa ngi si woo képp koo xam ni day bëgg sekk ndaanaan le 18 incha allah ñu ñëw marché Yoff incha allah rabbi ñu ñëw ngéwél yëngu di woo combat bi li ci woo Modou Mbaye Begaay Mbaye ñoom ñëpp maa leen ci woo di leen saak di sàkku ñaan si ñoom di wax ñooñu làmb boole ñu man ak ñoom dañoo bokk te luñ bokk mën ñu koo séddoo voilà xam nga da ngaa woo say mbokk booy teg maa man ñi ma woo leen ci làmb de ñooñu xaw ma leen avant làmb bokkuñu avant làmb ñooñu da ngay ay doomu géwél rek. bokk toog ci plateau. man woynde laa. te woynde tudd woon woynde. da ma ma wax. nu mu tudd kooko mu dee. laa te laaj ma nu mu tudd. nu mu tudd weddi dee. weddi dee. la dee waaye leneen lay def. woo samay mbokk yëpp. xam nga ñoom uus maa ngi woo bu baax a baax di wax waa écrit yoof combat bi seen combat la. combat bi écurie Yoff laa koy bëreel xam nga ñoom laa koy bëreel di sàkku ñaan ci ñëpp sama di di bëggee booy booy ma nekkal ci écurie bi ak grand yi ma nekkal ci écurie bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo ja di ko sant bu baax a baax a baax Modja di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko ay combat ay ndam yu bari di ko ñaanal ñëpp ñu nekk ci écurie bi di gërëm staffu écurie Yoff bu baax a baax a baax suñu coach ñoom bàyyi nga ñëpp Abibulaay ñoom ñëpp maa leen sant bu baax di leen gërëm xam nga di wax incha allah rabbi jour si nan teel a ñëw sama booy maa leen di bu baax ñoom ñu ngi si combat bi di si dox di si waa ñoom suñ Fallou Gueye ñoom Baytiir Mbaye njëfi njëfi Njaay xam nga ñoom ñëpp ñu ngi ciy dox bu baax a baax a baax a baax ku leen juum Serif Assane ñoom ñëpp maa leen di bëggee xam nga zo du jaan ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg di leen wax incha allahu rabbi waajal leen open press bi ñu dem. waay ah. combat bi incha allahu rabbi ñu dem yàlla defal ñu ndam suturaal ñu ci kartanu yàlla di santaat sama yaay di santaat suma yaay bu baax a baax di ko yaay ñu dolli ñaan yi incha allahu rabbi di sant sama papa di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi xam nga defal leen jàmm ju wér a wér di wax sama mag jaara combat bi sa combat la. waaw borom France borom pare la France combat bi sax combat la yaa Ibrahima Khoule xam nga ak jëkkëram maa koy bëgg ak doomam yi nekk foofu yëpp combat bi seen combat xam nga di wax Waly loo doon jàpp na do na na na ci biiraw damay jàppale maa ngi koy wax di bi bu baax sekk Seck jërëmi ci mbéy saaxa yaa nga làmbaay di woo ñëpp ci combat bi di ko wax booy am nga bés am nga bés boo musul am dinaa la yéen lu la mbër musul yéen. sama diggante ma ne ko yow jàpp mu ne am naa ci bés. am nga bés boo musul am. te dinaa la yéen lu la mbër musul yéen. ci kàttanu yàlla yow pare ràmbal ak ndëj ngay bëreel. sa waay yow bu la paas rawee affaire bi yaa may dégg. ak ak nan. du ay du ki ca ki ca bu la rawee yow doo fekk. pour ma yëngal fii waaye gars yi. yëngatul. ko fii nii nga toog nii. te xam ne incha ci kàttanu yàlla. mais Fallou Ndiaye. waaw Fallou maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla defal ko jàmm ndax Fallou Ndiaye li mu def yombul. daa boole espoir ci làmb ji. Mhm. yëpp yi nga xam ni xam nga làmb daa yaatu. du ma ne ñoo ci gën a tàng. te nag loo ci xamul mooy yéen ñi. Mhm. ak yenn combat yooyu ku ci daan da ngeen di bëriwaat seen biir. adversaire ngeen daa boole làmb xam nga maanaam li tàng la jël rek tegaat ko ci cin li bëgg mu xam. xam nga waaw groupe Ndiaye xam nga Fallou Ndiaye moom Fallou Ndiaye. Fallou Ndiaye ma àggale li ma gis Fallou Ndiaye production bi sama seen ci groupe bi ñëpp wax xam nga maa ngi leen di nuyoo bu baax baax di seen conseil tey bu baax baax xam nga di ko teg ci euh, grand Cheikh Diaw ak xam nga Cheikhou xam nga ak Amdi Moussa waa waa groupe Ndiaye bi maa ngi leen di béy bu baax baax baax ak groupe Ndiaye production bi may fay def ko commandos doomu jama gën bi quoi Ibrahima xale yi def naa waaw xam nga daaw da waaw Ndiaye Fallou Ndiaye maa ngi koy santaat bu baax a baax danga may bàyyi moo wax nag bu ma dog man doguma la comme te sant nga gërëm nga wax say wax yi nga war a wax yëpp man waxaguma damay bàyyi bu jour ji moo wax mais promoteur bi Fallou Ndiaye dafa def loo xam ni tey jii nii Fallou Ndiaye dafa def loo xam ne tey jii nii yombul quoi si si si ci làmb ndax dafa jël espoir yi nga xam ne maanaam làmb da leen di bàyyi xel mu boole leen ci benn jours di ko ñaanal yàlla defal ko réussir ci journée bii mu jëm waaw di ko wax ni gis nañ ku yokkul danga ngaa wàññi te moom day yokk làmb bu mu ci diggee ba tey xam nga ñii ñu ngi xool ay mbëri grand combat ay millionnaires yi di leen fay xam nga moom mu ngi xool boo yi nga xam ne amuñu dara dañuy jug di daanu pour bëgg ñu dem ci millions yooyu kon dañ koy santaat bu baax di ko ñaanal di ko wax ni yéen bi yàlla na oyof si kawam lool lool te gëm naa ni sax lii du yéen ci moom ndax moom jàmbaar la daa am mbir daa am mébét ci booy mébét bi mu ci am nag yàlla na ko àggaleeg jàmm di wax waa ngéwél tëgg koñ ba ñëpp ñëpp ñu waajal xam nga di leen wax combat bi nii combat bu ma soxal la te combat la boo xam ne tey jii nii bu ma ko daanee xam naa fi mu may yóbbu incha allahu rabbi te ci kàttanu yàlla dama koy daan bu soobee yàlla. ngeen mbokk yi Ousseyn comme ni ko waxee xam nga. ñaanal wax naa ci xam nga dañuy dañuy taw di sama doomu yaay. kon ma la ko waxee. maa ngi koy bëgg bu baax Fallou Lo mu nekk sama papa nekk sama lépp Fallou Ndiaye xam nga xëy du ma wax ci moom lu bëri quoi parce que xamante na man ak moom sama sama kilifa sama lépp la mm-hmm. franchement amul ma wax ci moom parce que dafa def benn geste boo xamante ni magalu Touba Refane jot mu déplacé wu jóge Refane ñëw ba sama kër xam nga maa ngi ci sant bu baax baax. bëgg waa Bawol gépp di ko di ko di ko wax mbokk yi Bawol Bawol yi maa ngi leen di bëgg bu baax Kajoor waa Thiès maa ngi leen di ci combat bi waa Thiès waa Dóor sama mbokk yi nekk yow sama mbokk yi Bawol Bawol yëpp nekk yow leen di bëgge moom day këree barki Serigne Saliou Bawol dama fa am loo xam ne moom amu ko fa sama mbokk Bawol Bawol yëpp maa leen di woo waa Thiès maa ngi leen di woo sama kër papa maa ngi leen di woo Basse Konde incha allah jaa ngeen xam bu baax da ngay sóobu rek